mbokki internet yi taamu NGTV Sénégal daleen ak jàmm ci xibaar manifestation bi waa yeewi askan wi doon amal démb ñu amoon ñun ci arrêté woon fële ca Ziguinchor Guy Marius Sagna ji moom dañ ko mujjee noonu ca police bu Ziguinchor ñun ñu wax ak yéen kon Guy Marius Sagna mi ngi ñu arrêté foofu ca police bu Ziguinchor naka noonu tam fii ci Dakar Ahmed Aïdara mi ñu arrêté woon ak Déthié Fall ak Mame Diarra Fam ñi nga xam ñoom dañ leen a arrêté woon ñoom tamit ñi ngi ñuy xamal ne ci xibaar ñoom dañ leen a nar a defeere ci altine jii nii kon ñoom jamono ji ñuy wax ak yéen ba léegi ñu ngi foofu ci garde à vue nga xam ni moom mooy maire Guédiawaye seen avocat koy ñaawal di le ni Mame Diarra Fam ak euh, Déthié Fall moomu ay kii di Ahmed Aidara nag moom mooy maire de la ville de Guédiawaye leen a arrêté nii ca nekkul flagrant délit li dara ñu di leen arrêté ba di leen defeere nii naka noonu tam fii ci Dakar kër Barthélémy Dias ba léegi jamono ji ñuy wax ak yéen gendarmerie ak police ñi ngi taxaw foofu di ko garder ba léegi xamuñu nag ndax danoo bëgg Barthélémy Dias génn ñu jàpp wala dañuy bañ Barthélémy Dias amal yenn yëngu-yëngu wala dara mais jamono ci ñuy wax ak yéen police mi ngi taxaw foofu kër Barthélémy Dias ak gendarmerie Aminata Touré nag moom mi ngi ñaawlu li xewoon démb ndax nee na waa yeewi askan wi buñ defoon leen waxoon amaana kon ñàkk seen bakkan ni du am ndax ñoom ñoo bëgg a def li nga xam ne mooy trouble à l'ordre public ak def li nga xam ni loi bi daf ko tere loolu moo waral ñi ñàkk seen bakkan moom Aminata Touré mi ngi koy ñaawlu te di ci jàmm wi ak ñi nga xam ni ñoom ñoo ko séq